Rapido innove et lance son sticker prépayé. Rendez-vous à l'espace client de Cambéren pour vous le procurer. Info Line 33 859 16 85. ak Jaouda dal suñu santé day gëna Jaouda mom lañu tamu fepp ci aduna bi. dom ji tudde na ko vite fait mosquito. ak gamu vite fait t'as sa bu la neex la ray bant buy pompe bu AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. Bâtissons le futur. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka hmm. du vrai café bu ngeen passer passé une commande ngir pas ci probio naturel aldebi wala bokk probio naturel simpi da ngeen di jokkoo ak ñun 524 76 76 ananas banana mango de la fraîche dalle, mashallah seen boutique solution ci njiital alhaji sanjogu mbeng ak soay bu jox ngir deugal ak wéral ni suñu garabi ciosan yi lu wér la su ngeen bëggee dégg dëgg dal ba boutique la solution juddo la jaay garab yi bon ak naxaata jeex ak magal oxygène plus bu bees bi seen bu bees système la

bis bo xamné dañu wara match bi ko déglu ku bu ñu dañuy wu équipe bi. sama gars sama gars bon juste dama doon xaar ngeen terminer parce que li ngeen di wax ni doléance la et que bu len faté ni équipe lañ wax une équipe C'est l'équipe qui gagne tay ci tay ci fo dem fekk len ñuy doxal la doxal équipe du si vous chez les comédiens bu production équipe mo koy def bo ci cinéma équipe koy def bo ñëwé terrain de football équipe mo koy def solidarité solidarité Benen bi revenons ci axe bi vous len xel sen attaque de pointe bi moytu len ko un contre un touché nako deux fois té ñom dañ bi match bi trois minutes un contre un il est rapide ce gars mais c'est quoi ça c'est mon <laughs> Il n'y a pas de sécurité non non non non non non non non non Eh, laisse tomber ne le regarde pas. comment vas-tu na ngeen def yéen a ngi ci jàmm. tu me manques bébé dama la namm. ñoo fanaan ci fajar gi laa fa jógee ñoo taxali koo kay mooy dafa teel namm bi. mais tu sais que c'est l'heure de la sieste. préparer sa massage préféré bi. séance bi jëm. massage. waxuma lu ma neex. sa séance. Eh, <laughs> quel tapalé. c'est ton moment préféré. <laughs> Bom, ok. Passei. Vas-y. Viens. Eh ouais, ça. coach nga bàyyil ma xel é kees gi xoolal ma ordonnance yeeg piqûre yi damay maase wu é maa é ñëwaat léegi oui eh ca cappale Rapido innove et lance son sticker prépayé. Rendez-vous à l'espace client de Cambérène pour vous le procurer. Infoline 33 859 16 85. ak Jaouda Dal, suñu santé day gëna Jauda, baax Jaouda mom la ñu taamu ci aduna bi. doom ji tudde vite fait mosquito. ak gamu vite fait tan sa bu la neex la cuuraayu bant buy dàq yoo pompe bu aay ci yoo. AIBD AIBD AIBD AIBD sponsor engagé dans le football. Bâtissons le futur. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous.

seen boutique solution ci njiital alaaji sanjoogu mbeng ak soaay bu jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la su ngeen bëggee dégg dëgg dal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex ak magaan oxygène plus bu bees bii seen bu bees système la